cours privé docteur Cherdien, Molen moo ramadan Koro surumule cours privé docteur Cherdien, un enseignement de qualité cycle élémentaire moyen secondaire situé ginnaaw nord en face du camp militaire pour toute information contactez-nous au 77 132 94 71 teg ci waañ bi waaye man moom wax dëgg yàlla tey moom jaari bi moom eh, jingéen yi ma jaay moom tey dara jarul maaleykum salaam kii du sama jéeg waa jéeg jàmm ak njëriñ kii du sama jéeg jàmm ak suñu jàmm jéeg jàmm fii ci loo ne ci jàmm sama sant alhamdulilah yegg si mère bee ma yónni aw ma toog waaye mënu maa toog yii mënu ma toog ma toog sama yaay moo ma yónni mënu ma toog nee ma mhm. suukaru koor boobu ba tey yàgg na te gisagul suukaru koor gi. dëgg la mais nee na suukaru koor gi la nga ko waxoon daaw daaw fukk nga ko defal fukki kilo ren nag nee na lii nga koy defal fukki kilo nee na nee na da nga koy defal saako ndax koñ bi ñëpp ñu ngi toog di ko xaar te waa koñ bi yëpp dañoo yaakaar ci moom ñi yaakaar ci moom dañoo bëri. dëgg la waaw ñi yaakaar ci moom dañoo bëri daaw ne woon nga ko nag euh, daaw vaccin yi nga ko waxoon ak jasner yi nga ko waxoon. ak borode piir yi ko waxoon yeb neena yow ya ko ko digon te man kat ma ngi ni tamit gis nga kiyaguma dara loolu am wa mais jëkkër sama mhm. xam nga sax année mhm. damay genn di joxe mhm, deug la yang muy deug deug la deug ren nak dama ko yag programme deug la avant koor gi di ñew la ne dina dem joxe sukor koor yang muy deug bu ko defé ma dem daggal la ben tissu ya ma gëna xam daal lo bëgg daal yang muy deug mais ren da ngay comprendre da ngay comprendre parce que den ni mu demee la daa xaw a dëgg te daa métti daa muy dégg waaw xam nga parfois tam si sa frère laay yaakaar te xam nga rek liggéey bi demeewul noonu léegi danga may wax sa yaay ne ko nga muñ ba déwén ndax damaa yoon. fii du ma fi bougé mètre te joxoo ma parce que sama yaay daf ma ne du ma fi bougé mètre te yow joxoo ma nee na su ma ñëwee balaa maa dem yow nag ma jox suukar koor bi ma yóbbu ko loolu la ma sama yaay te mënumaa dem. demal nel sa yaay na xaar ba déwén. mënul xaar ba déwén jëg ju baax ji yëpp jëg ju baax ji yëpp laa la wax de balaa weeru koor wala bu ñu umee koor la ñuy joxe suukaru koor. mais léegi su ma yorul ma jox sa yaay rek lu may def. da koy jox sa wargal la da nga ko a def. mais damaa yorul. da nga yor nag force parce que da nga koy jox suukaru koor sama yaay. mais wuy ma te man mi man mi war naa solu yow jëg ju bon nga. mais wuy ma boo nee force nag wuy ma da ngay ñëw sa génn sama kër ci biir. yaa ma dégg ah. parce que mbir gi du force. force la damaa yor yoruma aw ma lu ma leen jox codit force dama en tikina nga parce que timma ha an timma an ci duga gana nga kinna may jebe halo codit alfa nga ko wadin ka xel lew codit no xel lolu sama problème new sama yon new ci ka ga de wo andu degol ma la xana halo codit yoruma lima la jox halo codit fa ga nga fa xro yo ko na ponu dafa jogu ponu dafa tamit eh, eh eh eh balay kene de balay kene waxe nak fa xey wala nga fa xey xaraf kene ah mas na ko gis bo ñewé ci kër xana lu mu metti metti nga nuyu waaye nuyu ma ma taxaw di xuloo ci dëkk bu defati loolu de yow it nag kii sa jëkkër na jox ko cër de jox ko cër dégg naa ngeen seen seen kàddu yi jóg lan lan ma xew lu xew suukaru ko sama yaay moo ma ma ne ko ma ñëw di ko wax si suukaru koor bi mu may jàpp di mën a di rëjee yaay xanaa yëgul ne fan yi dëkk bi daa xaw a sant faal dëkk bu sante faal da nga war a jox suukaru koor lool de laa ko tegal expliqué ko mu ëpp ma làmbin lu nu yàq na ma ko euh, ma ne <laughs> sama rakk nga maa ngi yow bokk ndey ak baay waaye tey daanu nga li tax daanu nga mooy bi nga dikkee waroon nga maa nuyu nuyoo ma jéggal naa la dëgëraayu dëkk bi yow leer na ne xam nga ne dëkk bi dafa dëgër heure bi daana fekk ma ñëw kër ga jox meer bi dara fan yi jox ma ko tous xam nga daa nga ñëw ne dinga le xam nga boo dee làkk séeréer ma di la tontu dafay mel ni dañuy jëw kii ndax déggul séeréer nan wax olof mu leer nañ lay paafaal nanay paafaal a faax lekk du kenn moom lay Ah bon? respect respecté koi koy. O tef o dal o tef imines. Ah xam sa mi eh? mi imines. Mi mama yaaya. Xam len no ten. O lainnya nga lay ne yaayo. Sukar koor jege. Dama ne sukar gi ci bopam mo Xam nga wax ji lan la? Non non. Non da ngay deg mo wax ñum séré sukaru koor ak yoy yépp dañ ko bëgg jël def ko aada farata farata lañ ko bëgg def tadu farata aada la loolu ma jaaxal ah li ma lay xamal nak moy suukaru koor da koy man def ko munoo ko nga bàyyi te it nag nun am nañ meneen métier mu joxe suukaru koor ndax suñ kër gi fan yi dëgër gi mu dëgër yaa ma ko gën a xam léegi nag fexee la doxantu ba ci meer meer naqari taxam kii moo fi ñëw di duuli duulam di wax wax mais sama yaay xam ne leer na ma néew ko bu amee na joxe bu amul na joxe kii leer na ma ne kenn yónni ko déglul soo nga xamal ko ne bëggoon ngaa joxe amoon nga yéene joxe waaye munoo joxe nga wax ko mu understand dina la comprendre maa ngi dugg bi yegg la samay nelaw yàq ngir sama nelaw yëpp xam nga ne lii nga wax nii sarax ji nii du dëkk du yoon li nga wax sarax ji nii tegoo ko fenn amul lu ma jox sa yaay tey amul lu ma jox sa yaay suba yéen leen dama bëgg a xam yéen wee suukar koor est-ce que la xam nga ne sa raq ju seytaane jiyee xam nga ne bu demee dina ma jaxaseeg sa yaay waaye man ragaluma loolu faalewuma loolu yow yaa gën a seytaane ñëpp ak sa caaya gu forox kenn xamul looy ñuul fii nga ak man soof bay bëgg a dee yow bu dëgg la yow sa yaay wuy ma yow maa lay sagal bi ndax sagu weeru koor man maa jël sama xaalis bopp di ko jox sa yaay sukkar koor yow loo jox sama yaay li may jox sa yaay xamoo ana loo defal sama yaay sunguf yi may jël dëkk ba ko jox mu koy def ci yaramam defe nga loolu gën loolu gënu sukkar koor man loolu sama yoon new dama ne yamal yamuma yamal ci kudduñu roof la ci gayet yaa ngi may bëgg a dépassé nag yow ma dépassé la non dama ne yaa may bëgg a dépassé naa la ba pare. suukaru koor joxe mu jël sama caay forox ba man seytaane nga. yow bi la moomee dafa yàgg. donc dama lay wax rek yow bi la moomee du tey dafa yàgg. xam nga bëgg nga may ma sama baat bu waxu suukaru koor moo fi indi yow yow da mayonnaise la sa loxo rek mu dog may ma sama baat ngay ñaan eh da ngay ñaan. may ma la. dig ma ko may. mayu maa la mayut yow yaay ki may ma la ndax kër gi dinaa fi génn. maa man defe nga ne ñàkk naa fayda ñàkk fayda goo xam ne coowal suukaru koor dina tax sax sama sëy tas. ndax yow yaa bëgg sëy bi tas di. de yow yaa bëgg mu tas. yaa lan nga doon làqante ak sa sa raq ji. li ma ko làq mooy demal ne sama yaay xaalis amu fii mu ne di ko wax ma ne ko génnal sama kër ndax sama jabar ji moom la gënal lii de laa ko wax ci seedeel yow xam na ma sa rakk ji taxaw moo tax ngay bandi bandi di am looy ma ne ak looy piliqué man daal góor la ba ma attaqué ma waaye li ma ko wax dama ne ko xaalis amu fi demal génn sama kër boo demee sama yaay amul xaalis nga bëgg a ñëw dal sama kaw ñëwal nu waxtaan te bu ñu waxtaanee juboo gis na sukaru koor ak muurum koor jaxase na kër yi waaye na la leer ne koor gi sama yaay dina am sukaru koor ah ah ah ah chaque ah. sa yaay am sukaru koor ah ren ji sama yaay muume. mbir waaw eh wuy ma loolu ngeen nangu rek. nan ko waxtaanee waat de mbir ma gën la góose na de. ba ma forcé ci ne sama yaay na am suukaru koor te yun ma koy day métti de. ren daal sama yaay dina am suukaru koor mu lay neex ci mu lay naqari ndax yow seet naa ba seet damaa neexal ba sonn waaye bëggoo ci dara. mun dem naa ko naa ko loolu naa ko né dinaa ko négocier dinaa ko débrouiller bu fekkee même bu fekkee damay woo may woo Modou Mbacke wala ma woo Modou Awa. yaay xool daal nooy def woo Modou Mbacke sax nga woo lu am luñ ma jox ma jox waaye sax na nga woo Modou Mbacke affaire chantage yi waaw ndax yéen ñi dafa yi mën naa ñàkk barki démb rek laay woo Modou Mbacke di ko wax sama soxla waaye boo déggoon li ma yàq déggoo nga ne sa taat bi moo tax mun ma laa ba si doom yow man nag affaire baa ngi bëgg a nekk ci man takk mën fan laay jëli suukaru koor ah xanaa ma ji ma woo sama rek mu defal mako nam ko defe won dara fallu amal sama xarit ba ay borom Kaolack fallu say suma ma rek nga jindi ma ci sëñ fallu amar borom do mu ndey sëriñ buub soxna ci dengali li wax nee yaayam amul sukkaru koor mu ñibi bo ci jàpput lambay ñaw barke borom tuba barke bo ci jàpput lambay ñaw ay way fallu fallu ma ay way fallu walluma ma jek dina sotti bu soobee yalla